alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi siyaare mbokki muxaddamatul xidma yëpp waa daayira bi e, di gannaaw bi ñu siyaare sëñ sëñ sëñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di leen sant ci invitation bi ngeen ñu invité mu doon lu sedd suñu xol lu lu lu dalal suñu xel lool ndax li dëppoo naa li sëriñ bi bëgg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 rawatina ñun Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos nga xam ni ay liggéeyaakoonu seexul xaddim lañu ngeen royukaay ci yoonu murit amee barab bii nga xam ni murit yëpp ngeen ko ameel muy jumaay sëñ Tuubaa nga xam ni moom la gën a fonk ci kaw suuf te it murit yëpp di ko sagoo muy ndamul jullit yëpp ngeen di ko saytu ni ngeen koy saytoo rawatina bis nga xam ne mooy koor gii ak liggéey bu rëy bi ngeen ci dul yi ngeen ciy liggéey di ci joxe ay ndogu loolu sedd na suñ xol bég nañ ci lool ñu ngi leen ci ñaanal ngeen dajee ci tawféexu sëriñ bi ak ndimbalam ak xewalam gu yaatu goo xam li ngeen yéene liggéey Seex na Ahmadou Khadim ci dëkkam bi lépp di ngeen ko def ñun Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos daal bég nañ ci lool bég di ci ànd ak yéen lépp lu ngeen ànd noog yéen noo ca liggéeyee ko nu Seexul Xadim lañu jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah